kooku bu toogee Thiès 21 mois 21 mois nekk président du conseil départemental di gagné presque 21 millions ñetti session dong la def c'est ça qu'on un emploi fictif liggéeyul moo tax tey gis ngeen ñu jógee réew mi fii démissionné ñoo ànd ak ñun ñu ànd ak Macky Sall pour liggéey réew mi politique qui n'est pas capable de gérer sa permanence di ko fay à dakaar sur la VDN man maa ko nangu ci loxoom génnee ko ci biti parce que ñun ni ko ñun dañuy liggéey je l'ai mis dehors et j'ai mis le siège de Dakar Dem Dikk inside wax naa ne ni le PDS n'a pas de candidat s'ils ne sont pas prêts nous on va les prendre de vitesse mu leer mu leer Parce que, je vais le résumer très rapidement après. Parce que, candidat bi ñu am nee nañu candidat bi nekk prison temps yi di ñaan wàllu di ñaan wàllu ci pays am de saint mooy la France te seen avocat yi demandé ñu condamné Sénégal pour loolu ñun suñu constitution dafa leer constitution bi nee na képp koo xam ne am nga fi ñaari nationalité buy Sénégal ak beneen munoo fi jiite la preuve est rapportée l'aveu est de taille que kii ñu bëgg a teg ci sénégalais yi français la ñun nag bëgguñu président français en 2019